dina sargal dina la ñaanal nga yàgg fi lool lool lool te wér bisimilah. jërëjëf soxna dégg ngeen ni yàlla na ko yàlla boole ñun ñëpp te nu santaar sunu borom mi ñu indiwaat. amin amin amin allah ci jàmm ñaan yàlla dellu ci jàmm. ndeysaan amin allah ji. lu ne waroon na fee xew lu ne xew na fi it nag. dëgg la. ku yàlla may nga toog fa nga toogoon démb di ko netti li santal sa borom mu yor lépp. ngeen jël lépp jox ko kii joxe dépasse te toog ci saal lu raxasu teg ci. macha allah macha allah. yal yàlla jàppale jàppale la fa la cat. jàppale sa waajur yàlla gën ko kondir. ndeysaan ba daraam du paan fekk lépp. ndeysaan ndeysaan. jàppale ki tax jeeg gi la. dëgg ngir yàlla dong nag tax. ndeysaan. sëy bu ci yàlla génnee. Mm. addinaay dugg addina lu mu dugg. Mm. jamonoo koy nangu. yal na ko ci yàlla jàppale bu baax. allahumma amiin amiin yaa rabbal li ne ci xolam it yal na ko ci yàlla dimbali. ndimbal ak góorgóorlu dañoo xaw a daroo. dëgg la waaw ndimbal yàlla lay dimbali nga góor góorgóorlu nag yàlla fekk si la yàlla na sax. amiin yaa gërëm borom kër gi yàlla defal ko jàmm. defal ko yéeneem. amiin amiin allah mu yéene yëpp ak ñi fiy liggéey ñëpp. allahumma amiin ak kilifay diine yëpp tubaarkalla eh, yàlla gën noo defal li nu bëgg lépp. te wax jéggi sunu bopp. te thème bi ñu di ko déggee xel te bañ ko déggee xol. lool xasuñu kenn. ndax bala ngaa xas da ngay xam. dëgg la. te weeru ko la ñuy waxee. dëgg la jant soogul. kon juubu mën naa bañ a am. waaye juubut mën naa am. dëgg la waaye li gën a rafet daal nii nan ko def. kenn ku ne jox lépp ci respect delluwaat démb la ma ña doon bëgg ndubu ko bëgg tey daw ndax ëllëg réew mi dafa am lu fi ne dëgg la muy teraanga ju fi yàlla sax jëmbat ko fi mu sax dëgg la nan ko mbay mbay bi rafet dem bañ a ñaaw dëgg la loolu ku mu ne rañ na koo wax ñi tukki ak ñi toog ak ñépp a ci yam tem bi xóot na dëgg la waaye buñ ko xóotal nag ba gis ci leneen amu ci ñi koy def dañuy ñaan yàlla ñu dëpp ñu ko defagul seen xel ne ci kàddu bu jibee dangay ngay yedd sa bopp dëgg la ni lii am naa ci cër naa fexe ba mu deñ loolu mooy waral wax di jib di yar doomu aadama te kenn du ko fekke bari na jeeg ju jub suñ tool te seen mm. jëkkër jubbantiwu leen dañoo nekkoon ci àllu dëng seen jëkkër bar koo dijjante mu indi leneen ñu dégg émission bi ni tekk yaar seen bopp xam ne ku toog ci aw ñàll di laajte sàng nga sa bopp waaye bu dem ngir foo jaar yegg macha allah kon wax lu baax fi la nu ko fekk fi la nu koy bàyyi yàlla nañu déggee xel te ba ñu déggee xol amin amin yaa rabbal alamin di gërëm nag sama caat ndeysaan ndax dégg naa démb sax am na ko weer ñu ne ma waaw yaa caat eh. xaa da ngeen liggéey dégg ma ne ko eh. ah <laughs> loolu lañ ma wax ma ne ko ah man de tukkoon naa fi jolof <laughs> uh-huh. caat it am na fukki fan yu fi dikkul xaw fu waaw caat ma demoon na Joal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 waaye nangu dogalu suñu borom bi ndax àddina du kër fa tabarakallah macha allah mu mel ni nag xam ngeen ni seen émission bii di wareef ci télévision Futurs Médias seetu askan wi ay thème la ñu yëkkati nag thème bu bees jëmale ko ci lii nga xam ne moo di lan moo di tukki euh, alaaji lu ñuy wax judduwaat tukki judduwaat mu nekk baat boo xamante ne bu laaj dégg la fa tabarakallah macha allah naka la nekk nit nekkee ci biir réew mi tukki judduwaat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 mu am les puissances à base d'amande douce am les carottes am les énergies à base d'aloe vera am les suprêmes à base d'huile d'argan ak les caviar éclaircissant ak caviar unifian bi muy six façons bu ne am tubam am savon am sérum am lait am tube spécial visage yi am baume yi am crème amincissant yi pour corps am baume crème d'excellence yi am yi aussi bii crème sant la sucré am crème pour corps yi amincissant lii ay gel de douche la à base de qualité ak vanille boisée ku ne xam na karité li muy def ci yaram anti ride la anti vieillissement la produit yëpp lifting la day tàllal sa der hmm? bii di crème pour crème carotte bi di leen présenter aussi la gamme Patricia Régnier gamme bi dafa large am na lépp baax ci yaram produit sans hydroquinone la di defar sa yaram dina la xeesal du yàq sa yaram du favoriser ay réew ak ay tache ak ay cere bi am na lait am na tube am na savon am na sérum am na lotion am na glycérine boobu mooy gàmmu merveille bi merveille intense à base de carotte mu am lotion lait glycérine tube sérum ak savon mu am aussi crème clarifiante léegi ni mu amee gamme merveille intense à base de carotte noonu la amee bu aloe vera bi mu am tube am savon am lotion nettoyante pour visage am aussi glycérine hydratant pour le corps ce que ngi toujours ak seen cosmétique Kër tey nag ñu dellusiwaat di leen won gaamu Jekis Fashion bi di leen ko wanaat une fois de plus comme amoon na gaam pour jigéen ñi mu am 10 façons de parfum différents tey na dañu leen woon yu góor yi yu góor yi nga xamante ni si ñu ngi soog ñëw am na 6 façons ñu naan ko jidimaan muy parfum yu neex boo ko defee dina durer 24 heures sa yére te du dañ muy résister chaleur boo ko defee dina neex ak tàngaay bi lu mu tàng tàng du dañ du gaaw a dañ surtout góor yi nga xam ne dañu nekk toujours en activité bu ñu jëndee parfum Djily Mane dinañ am sensation boo xam ne vraiment dina neex ci seen yaram waaw mu am aussi six façons loo demee ni que dynamique bi hmm, moo nekk ni en mu am aussi classique bi mu am encore élégance bi am aussi intense bi waaw am naturel bi ak sixième bi du pur man bi ah yii di six façons parfum de la gamme Jackie Special ñu naan ko Didi Man pour homme. Jackie and David dañu ko taxawal ngir defar parfum yu gën baax ci àdduna bi xeetu fruit ak i fleur la ñu sukkandikoo ngir créer parfum Jackie Special ràññi nañu ci euh, fukk ak benn xeeti parfum Sivop bi defar Caroskin ñoo leen di may seen émission Wareef jërëjëf kon euh, euh, waa kër Aram jàppale di remercier bu baax a baax encore une fois Libaas Ja ak soxnaam ki ne Libaas ci produit yu am solo yi nga xamante ne ñu ngi koy proposé ak partenariat bi nga xamante ne lié nañ ko jàpp bu dul bàyyi defe naa ni Fatou Bakay la macha allah alaaji waaye defe naa ni parfum góor yooyu noonu noonu noonu ñuy wane g jide meen yeeg yooyu. Mm. yooyu moom moom moom lu jare wute la xanaa léegi dootoo waxati dara laaja. jide. jide meen mooy parfum yu xeeñ yooyu rek ngay xeeñ. jide neem. déedéet du du neem alaaji meen mooy góor ci anglais. du neem. moo ko def de neem. déedéet neem dañ koy lekk alaaji jus de neem kay. boo xeeñee parfait bi dañ lay indi loo xëy day neex ba pare te du xeeñ ci yow ndax parfait bee koy dégagé. alaaji tey foofu nga génne waaw foofu laa génne waaw bàyyi bàyyi ma jàll ci leen <laughs> non non Zey sa papa beneen affaire la léegi nag moom fu mu nee nii indi na fi waa man léegi bàyyi bàyyi ñu ñëw ci tam bi alaaji tukki judduwaat tukki judduwaat bi démb ñu ngi koy indi gis nañu ne nit mën naa bañ a tukki sax wala boog tukki tukki bu gàtt jël oto wala boog jël train ah wala boog euh, jël sept place lu ma mën a nekk jóge dëkk ak dëkk so soppeeku judduwaat loolu gis nañu mën na ne démb wax nga ma ne am na 110 loolu nga ma wax de démb. ëpp na ko waaw ëpp na ko téeméer rek fukk de nga ma waxoon démb. ëpp na ko léegi mu ngi ñaata. ëpp na ko xam nga tukki juddu. Mm. boo gënoon ci biir télévision bi képp fi mu toll génn sa deux ans nag. Mm. petit voyage la ak long voyage daa bokkul. dëgg la. waaye lépp jukkoo lay topp mooy ànd ak yow. dëgg la bu normalee foo mën a dem ci àddina soo dëppee fekkaat ko àndam. dëgg la bu neexee boyal boo ñëwee jaaru. dëgg la la ci. bu normalul nag foo dem da ngay suppi ko waat diggante fii ak fii. dëgg la ñuy diw yendu na kër diw. dëgg jóge na këram. tukki la muy piti dëgg la def fa giraawaali. Mm. judduwaat na fa. Mm. ndax ba muy jóge këram am na lu ma xëyee woon. dëgg la waaye bi muy egsi am na lu mu yóbbaale. dëgg la laaj. dafa bari ay gaam yu ne ci biir yoo xam boo ko doon jeex. Mm. dem na fu ne ci tukki judduwaat ci biirum néegub sëy la commencé dëgg la laaj sa diggante ak say waajur la commencé dëgg la laaj sa diggante ak sa boroom la jëkk a commencé far tëj mm-hmm. tukki judduwaat dëgg la ndax yàlla da laa wàcc ci kaw suuf mm. nga tukki si mm. dëkkunu fi mm. foo dëkkul gan nga fa dana ñibbi fa na ñibbi ëllëg la yàlla yeex kon gan la nga yor beneen jukk bu bokkul ak bi la yàlla doon séentu ak mbooloo mi di fii nga am foo juddoo ñu am ci yow yaakaar mm. nga ne diis tas yaakaar ja mm. yor beneen melo mm. jikko ja sensé tukki judduwaat yépp muy jikko jikko heure boo xamee bi bu la neexee wëlbati ko bu doon deret wayul boo ji turam ndox mu daw bu doon ab taw bu ji boo jiyee doo déqi ba doon bàqu tooyul gàdder si gàncax mooy tukki judduwaat dafa dem fu ne dëgg la li ko wolof di wax nag ñaar ñu ngi ko séentoo ci tàggatoog say waa kër mhm. say bañ mhm. say noon mhm. say soxna say waajur ñu gunge yaa xam nga jaar frontière mbaa aéroport génn nga rek réew mi ñoom sew yaakaar amoo ci ñoom yaakaar boo fi yaakaar ñibbi nga tukki nga alaaji jërëjëf kontaan nañu bu baax a ci biir tukki judduwaat boobu mu am ñaari exemple yoo xamante ne jox nañ ma ko ba tey ndax ñun moomuñu émission bi yéen ñi koy seetaan ci réew mi ak ci bitim réew yéen a ko moom benn exemple bi ji mu am ci kenn ku ma ni man immigré laa mu ne ma sama soxna duma mën a wax ni xaw ma ko mu ne ma ndax koo xamante ne sëy nga ak moom nga bàyyi ko fii ngeen jot am ñaari doom fii yàgg ngeen mu ne dama munu ma woon wax ne xaw ma ko mu ne donte dañuy jàpp nit kenn du ko xam mu ne ma bi nga xamante ne nekk toog nañu ba mu jur suñu ñaareeli doom mu ne ma ñu jékki-jékki daal mu am jamono joo xamante ne fa ma nekk ci Europe Euh, dañ fa doon ut ay këyit utin wi yomb mun a ma ma def tout ba nga xamante ne sama soxna ñëw mu ne bi sama soxna ñëwee mu ne ma li ma jaaxal bi mu demee ba téye ay këyitam soxna si ma amoon fii ah njaboot ak moom fii mu doog ko fekk bitim réew nee na ba mu demee ba téye téye ay këyitam moom soxna si ci réew moomu mu ne dama mel ni du kii laa mës a xam Sénégal labatoon ko téye ko mu yem samay tànk yem samay waaw yem ci lépp ba fu mu nekk nii beneen xeetu soxna laa am mu ne ma dem nañu ba nga xamante ne fu mu nekk nii cherché na ma tàppaas divorcé na ma génnee na ma kër gi ma fekk ba nga xamante ne fa ma doon suturloo toog fa mu nekk bitim réew ma koy yónnee mu nekk bitim réew ma ngénte def mu nekk bitim ma def mu ne ma soxna soosu moo ñëw toroxal ma ci réew mi kon su fekkente ne da ngeen di wax xeetu tukki judduwaat te man may immigré dund lu mel nii te soxna si ma ko teg du koo xamante ne dama ko takk bees de mu ne déedéet du koo xamante ne dama ko gis ci film wala dara takk ko mu ne non koo xam ne jot naa dund ak moom ba jóge fii ba ñëw ba lijjanti ni ma fekk see fekk sama doom yooyu xaw a dëgër mu ne ma kooku soxna soosu moo ma def kon su ñuy wax xeetu tukki juddu at alaaji nañu jël li nga xamante ne moo gën a moo gën a euh, ñor ñi nga xamante ne ñoo ñuy seetaan bitim réew ñu traité ko benn boobu moo am keneen koo xamante ne ne mës na ma wax ne. man sama jëkkër dëgg dëgg dëgg dëgg bi may sëy ak moom yëpp musuma ko xamal jikko borom ñaari tur yi musuma ko xamal suma ko xamal musuma ko njort du ci yiwam du ci diineem du ci comportement am du ci dara waaye tukki na tukki bu yàgg boo xamante ne ba mu dellu see dafa soppeeku carrément soppe na ci teint soppeeku na ci teint soppeeku na ci façon soppeeku na ci sëyin bi muy sëy ak man ba man ma dem ba njort ne sama jëkkër fa mu nekk ca bitim réew la mu tàmm leneen xeetu sëyin la ak yeneen xeetu defin lu dul lu mu ànd woon ak moom fi kon suñu waxtu ki judduwaat ñaari paquet nga nu yoo xam ne. war waaw gis nga kooku bu mu ni sama soxna. Hmm. amul soxna tëkkul soxna. ah fii soxna la woon di. non non non Moussa doon soxna yeeru ak jabar. alaaji yeeru yeeru ñaata at. dama ah, dégg nga. yeeru ah, fukki at ak ndaanaan ak kaadar. xamoo leen. nga ne ak ndaanaan ak kaadar xamoo leen. alaaji yeeru bi yàgg na. dama waaw muñkat bu muus. tey muusal te xam ne fu mu jaar taal bu taalee dina ñuulug te bu ñu liggéey taalaale danaa teg ba am li mu bëgg feeñal jikko judduwaat ndax xulóo laa déggoo li ma yow dama ni alaaji bii dangereux yorul jabar tëkkul soxna li mu nekk fii kon du jabar li mu nekk lépp ndaw si danoon yeeru ni teg sox balam xam ni yàgg yàgg dina séeréer si tur góor ga yóbbu ko la mu laloon mu lalli ko judduwaat nag fekkoon na jëndam xaram ba pare rindi rek a des ñu tudd ko beneen tudd. mu tuddaat boppam waaw waaw. waaw waaw. dëgg la ku tukki judduwaat ñaari tur nga am. dëgg la tur wañ la xamee sool nga ko. dëgg la boo am néew faatu na am na armeel. dëgg la bu bees boo jiw. dëgg la amuloon soxna jabar la ma. dëgg la ki woon sama jëkkër amuloon sëriñ jëkkër la am gis nga dégg naa wax leen lu wér. Mm. jigéen ju xam. Mm. xàmmee mm. yeewu mm. te yeew di mm. lu ñëw mën naa jël tànkam teg ci te xam ne bisi nga ñëw arrange bisi mbiram kem ñaari doom mu ngénte ko fii mu ne teg xam ne ma nga bitim réew jëkk jam fu mu ko teg placé ko yàgg-yàgg dina ko mas a fekki lam bëggoon ndaw si xam ne dina mas a ñëw te dina ko am su ko amee dina ko kuu kuu boo gis mu dal da koo préparé te teey te xam nan lay tiiree. kon li mu toog yëpp ah, ñu koy préparé non allah ji lii tiitalaate na allo. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam. soxna si ñu ngi leen di ziar bu wér. ku baax ki ziar nañ la bu wér a wér waaye. waaw di ziar aussi Pam Ngom Ndiaye Lo. daal di leen ziar baax. waaw ñu ngi tudd Mansour Ndiaye ñu dëkk Louga mais maa ngi lay woote Angola presque. ah ñu ngi nuyu waa Angola yëpp Ndiaye. waaw ñu ngi leen di ziar bu wér. jërëjëf jërëjëf Ndiaye ñu ngi nu waa Angola yëpp. dama dañu dañu am occasion tey ñu ne nañu woote ziar suñu mbokk yi. bisimilah ziar aussi Pape Ndiaye Lo vraiment c'est un kon qu'on suit trop trop trop trop ici vraiment. ma allah benn faala boo xamante ne vraiment dañuy conseil nit ñi nekk ci àll bi dañuy déglu ay waxam trop trop trop. macha allah macha allah. vraiment kontaan nañ ci moom trop yow soxna si kontaan nañ ci yow trop vraiment kontaan nañ ci yéen waxtaan bi dafa mel ni ñun bu ñu nekkee ci àll bi bu ñu leen di déglu yéen ñu mel ne yéen dafa am lu ñuy fàttaloo lu bare bare bare ci Sénégal aussi ñun ñu nekk xale bi ci àll bi mais suñu éducation ci yéen lañ koy mottali quoi ndeysaan ndeysaan Njaay Njaay yal na yàlla defal lépp yal na yàlla mottali lépp ci barke Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam ndeysaan di nuyu waa Angola yëpp macha allah. Ah, ah, alaaji doguma la diggéen xam nga diggéen lépp solo ci tukki judduwaat gi. Mm. bu dee biir réew mi du saf nit ñi. Mm. dañ lay baag sa xew te doo gis mbooloo boo laaxee bitil. baa nga saraxe waaye doo gis ko lekk. bu dee tukki nag da ngay tas yaakaar. Mm. say bañiree. say fami sëgg. ñi la juróon am gàcce. ndax ku sol boo yee am xar di ko yafal bu tabaski ñëwee da ngay rendi boo rendiwul sam xar perte. am nga loolu gën amul loo gënal. tukki hmm. judduwaat li cëpp lépp. Hmm. inauguré ko gën a moom. Hmm. ndax yett na cee lalu yett. ki nga dagg billet ne ko soxna si excel. fekk si may yaakaar tax nga dagg billet. soxna si buy tàggoo dañ ko naan góorgóorlu te muñ. fekk am na lu ma laal. dëgg la la ma laal nag neexut a xam. dama ne. cadre ak njàccaar ak nandite. mais su ko xamoon dëkk ji du ko yóbbu. déedéet suñ ko saan si waaye di ngeen kuy daas paak bu xamoon yow lay rindi. dëgg la da koy diibal dëgg la ñaw dëgg la laaj. dafa ñoo xam ne ma moo tax dama yett yi ñuy defal jigéen. Mm. dama yàlla baal. Mm. Euh, fukki nit ngi nii waruñu koo jël. Mm. yor. muy dundal. war na. yefal. neel teg waaye xont nag bu sam xel gaaw a dem. bu ñu gaaw a xont. déedéet. am na ñoo xam ne heure boo leen xool dellu fa am. Hmm. boo sampee ñu fël ko. Hmm. boo sampoo ñu samp sa kanam. Hmm. ki samp sa kanam yow lay wër. loolu ci xeetu soxna yi la. jabar waaye jigéen soxna tuwa soxna dafa raar soxna jigéen dafa raar amatul bëreetul jabar jabar jabar bëreetul dëgg la la ndax ñàkk ngor ak judduwaat munta weesu dëgg la ñuy génte la ñaari xar yu bokkul dëgg la dëgg la ay baas yu bokkul ak i sees dëgg la ñaari imaam tudd dëgg la sa jëkkër nekk jëriw ma dëgg la xelam dal. fexe ba nga ñëw këyit yomb. dëgg la bu daggalee këyit. loolu la def. te këyit toujours kër këyit. Ah. nee ma nu mu tudd nu mu tudd kër. lu barkeelee jëlee ko ci ligne bi ndeysaan ndeysaan ndeysaan allo. allo waaw allo. allo. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam. Euh, maa ngi tudd madame Sow maa ngi wootee ba Paris. madame Sow à Paris na nga def. maa ngi fi. mbaa yaa ngi ci jàmm. waaw ñu ngi ci jàmm alhamdulilah. bisimilah bisimilah. waa dama bëggoon participer ci émission bi. waa dañu bëggoon rek nga wàññi volume télé bi. d'accord soo wàññee volume télé bi ah comme ça ñu gën a mën déggante. d'accord c'est bon léegi. waaw dégg déggatuñu télé bi bisimilah. waaw donc euh, dama leen di encourager ci émission bi ngeen di def. ndeysaan jërëjëf waaye. voilà di leen ci jaajëfal. jërëjëf madame Sow. ndax émission bu neex la ñun dañ koy suivre fii depuis Paris. ndeysaan. man boog particulièrement maa ngi sama liggéey parce que sama liggéey bopp laa yore. macha allah. donc euh, ça me permet may may seetaan seen seen émission ba tous les jours. alhamdulilah. donc émission bu am importance la. ndeysaan. ba pare euh, thème bi ngeen jël tey ñun daf ñu laal ñu ñi nga xam si ñoo nekk bitim réew. dëgg la. c'est un thème boo xamante ni mën naa wax ni ça nous concerne à 80 pour cent. dëgg la dëgg la Sow. parce que ñun ñu jógee fii Sénégal ñëw ci réewu tubaab yi. Mm-hmm. xamee ni que ni mënuñu réew yu bon la mais am nañ lu bon lu bari. dëgg la. donc ma je pense que ni euh, éducation de base dafa baax ci nit. dëgg la. parce que am na ñuy jógee Sénégal ñëw fii ci dëkk tubaab yi. ndeysaan. def fi plus de 30 ans def fi 40 ans. dëgg la. amul dara loo xamante ni mun nañ ko gis ci tubaab yi ba mu yëngal leen. dëgg la. bu leen yàq benn yoon benn yoon. benn yoon ndeysaan donc ñooñu am nañ éducation de base bu ñu jëlee Sénégal. dëgg la indi ko fii ci dëkk yi. dëgg la am na ñoo xamante ni dañuy jógee Sénégal. Hmm. def ci dëkk tubaab yi fii 3 ans 4 ans du dara. Hmm. par rapport ak ñi fi def plus de 40 ans. ndeysaan yàqu nañ bu yàgg. dëgg la jigéenu sénégalais yaa ngi fii di tux. Hmm. jigéenu sénégalais yaa ngi fii di naan. comme tubaab bi jigéenu sénégalais yaa ngi fii di roy presque bay. ba ba ba sax euh, gën a def lu bon que tubaab yi. dëgg la. donc éducation de base la. ndeysaan. nit bu ñu la yaree Sénégal nga jógee Sénégal même bu fekkee ne xale nga fa jógee ñu yar la yar boo xamante ne def nañ ci yow loo xamante ni c'était bien inculqué. Mhm. au Sénégal. ndeysaan. boo ñëwee fii doo gis dara dara dara dara du la yëngal. ndeysaan. madame Sow à Paris kontaan nañu bu baax ci moom. alaaj dafa am sama benn sët boo xëy dafa takk soxna fi ci Gambie. Mm. jox Modou Seck. Hmm. nekk Espagne. yóbbu soxna sax. Hmm. am moom deux cent trois cent ma ne ko hmm. waaw. tax tëkkoo Sénégal bi nga dëkk. nga takk Banjul. di yóbbu. mu ne ma tontoo ma ne ko ah mu ne ma jikko ju rafet newul Sénégal nekkul Gambie. jikko ju rafet nekkul ci mbokk nekkul ci kudul mbokk. bu sa jikko rafetee te ñu yar la fu la neex mën ngaa takk bu jullitee. dëgg la. ñu ngi ci wenn temps yu manqué. macha allah macha allah. Modou Seck. macha allah ndey. %e Gambie la dëkk. ndeysaan macha allah macha allah am nañ ko. ndeysaan. Ndaw. nga xam ne kon dëgg gis nga jikko ci boppam. Hmm. xeet bi nga bokk. Hmm. léeg nga làmb ci. bu hmm. ca sa loxo. dëgg la. nga dem ci weneen xeet làmb. dëgg la daj dugalaat sa loxo daj ko daj daj gis nga judduwaat. bu ko nit dul ma euh, ëpp. bàyyil. mais alaaji mu weesu mbote mais alaaji kuy day weesu mbote mais bëggoon naa la laaj aussi kon kan la ñuy wóolu parce que su fekkente ne yow ne nee nga euh, kii maa ngi koy doog a takk xaw ma jikkoom yaa ngi dégg baax li ma la mhm. say mbokk ne la waaw kii xamoo jikkoom bu ko yóbbu naa nga ma mën nga dem ba foofu nax la comme genre ñoom Zeyna yi su ñooy tey naa ko ci tooñ ndax généralement ñoom dañuy naan naa fexe rek ba génn réew mi su ma demee du duma sax sax gisati xam nga loolu ay diil yoo xamante ne xale yi ñu ngi koy teg la mm-hmm. ah te léegi defe naa ni ña nga ñi ci bëri ñu nekk bitim réew li xale yi di wax nànd nànd nañu loolu complètement ba kenn doot leen naxati kon su fekkente ne am nga kenn fii bàyyi ko fi lu mat 10 an mu jur la juraat la da ngeen di sëy dem bitim réew koom doy la nga gis ci moom lépp xëy kooku mënuloo imaginer ne dina ñëw bitim réew di judduwaat ak dina la toroxal mm-hmm. waaye ci ginnaaw lool tamit am na benn question boo xam ne laaj naa ko ko mm-hmm. waxal après wax la lan laa ko laaj dama ko ni jigéen ñi tamit de manière générale ñoom ñu ngi naan aussi ne góor ñi dañuy tukki judduwaat kay tamit am na tamit yéen ñii góor ñi il faut ngeen sóoraale ne am na ay réalité foofu yoo xam ne du réalité Sénégal jigéen bu la déggal fi à 100 pour cent mën na ne waaye euh, bitim réew dafa am ay yeneen réalité yoo xamante ne soo ñëwee sa jabar nga koy empêcher mu liggéey wala boog sa jabar nga koy téye di ko bundu xataal wala di ko teg ay conditions yoo xam ne gisu ci boppam ci réew moomu su fekkente ne bëgg na sax Ah, xam nga alaaji xam nga tax yow sa doom bu jigéen soo ko mayee fu mu nekk nii mu toog ba dem ba bitim réew mais li ngay xaar mooy mu yónnee la te góor bi su fekkente ne mu ngi liggéey du yónnee yaayam ak du yónnee papaam yow sa yaay sa papa dëkk ci da wax soxna bëgg nga liggéey léegi kon liggéey boobu nga xam ne yaa ngi koy def pour dog bu mu gàcce yaakaar yi nga xam ne bañ nga ko te Sénégal góor googu su ko bañee xëccu xëccu xëccu mu bañ day indi problème te fii ku ci tukki rek yaa xalaat lu mu yónnee fin du donc problème la dafa am góor ñoo xamante ne ni ñuy gisee fi noonu la ñuy gisee bitim réew ah paquet bu doy waar laa la jox. waaw waaw ñu ngi léegi. allo. allo bonjour. bonjour. salaamaaleykum. ça va. ça va bien merci. alhamdulilah participer émission bi. waaw ñëpp a c'est la première fois nag may participer ci émission télévision. Ah, parce que ah yàlla yàlla bu mu doon une dernière fois. <laughs> ah j'espère ak TFM moom je sais que Youssou Ndour a modernisé la communication. alhamdulilah lépp lu ñu bëggoon gis ak lépp loo xam ne ni mu ngi yeete. donc mu ngi koy euh, mu ngi def tout pour euh, pour que ñëpp jot ci communication bi comme il faut. donc alhamdulilah moom c'est un développement au Sénégal boo xam ne kontaan nañ ci torop. alhamdulilah waaw moi depuis que je suis à Paris euh, gis comme sujet bi ngeen di wax ni mhm. gis naa si ay jigéen ñoo xam ne. Mhm. nu ñuy sëyee. Mhm. comme cas bi nga wax léegi nii ne xale bu góor bi fii bi def ko abandonné après bi mu amee papier am. li dama bëgg a xam ne ki kaay yu euh, fréquent chaque jour damay gis ay sénégalais yu am même buñ ñu ko waxul seen parents yi ay cas yu mel noonu andi fi seen jabar dem ba ci biir mu woor leen parce que ñëpp xam nañ ne système français bi jigéen mooy prioritaire par rapport ak góor. dëgg la surtout bu ngeen amee ay enfants yu doom yu mineur. dëgg la donc sénégalais bu ñëwee fii euh, bu dañuy ut ay fréquentation yoo xam ne nii dafay tax euh, nit yi dañ leen di jey. ba ñu bàyyi seen jëkkër yi wala ñu génne seen jëkkër yi avec l'aide des assistantes sociales. dëgg la yoo xam ne nii boo fa demee dañ lay jay di la wax di la laaj ndax sa jëkkër moom lay toppatoo est-ce sa jëkkër da lay dóor di la def yoo xam ne nii. ak est-ce euh, doy moom la ñuy génnee. dëgg la. voilà yow yow ku jigéen ki yow la ñuy protéger à cause des enfants. dëgg la donc may yee wax sénégalaises yu bëri nekk ak baaxul. dëgg la. nit ki bu la takkee. may la këyit li gën a jafe fii parce que j'ai vu des gens yoo xam ne ça fait vingt ans ñu ngi fii. dëgg la mënuñu fexe am papier. dëgg la. donc yow bu la nit may papier fii mooy c'est la clé comme on dit. Mhm. donc kooku lépp waxuma mu lay door mu lay saaga de mais wax nga ko mën a muñal le minimum. dëgg la donc may wax aussi parents yi nga xam ne nii dañuy saf seen doom yi loo xam ne nii amuñu ko. Mhm. da ngay tukki ñu yaakaar ne que fii l'argent coule à flot. da koy for. fii amu fii. nit yi dañu war a wax dëgg seen parents yi. dëgg la. wax na lu am solo merci dégg wax na message boo am solo. waaw lool. mooy sa mooy sas bi ma lay waxee. waaw jigéen ñi dem dem wuti góoñu ne dafa teg de. waaw xam nga diggéen xam nga diggéen euh, jëkku lay lay la. Mm. waaye bu naaje jëkk lay lay la. Mm. waaye bu naajee nag. Mm. lay ba dem. mu des naaj wa. dëgg la ku góor ki mën naa laay loolu mu la wax. bu ko jigéen gi waxoon hmm. nga ne tekk nag analyser hmm. dama ne këyitu société hmm. jeeg boo ko defal soppee jeeg ba bañ këyitu société ten unigir yu bare ngi def këyitu seen jabar société lay doon ndax la nga tàmma yore sa jabar fii ci réew mi bu la fekk see nga suppi ko bu sa jëkkër defee dërëm sa jabar def dërëm bu leex jotee mu def fukk nga def ñaar fukk nga yónnee sa ndey ak sa baay sa jabar nga bone ko du xam ci lu muy def. soo mee fula day taxaw ndax xamul woon lañ ko yore woon nii. kon ku jigéen ki daa góor ki daa juddu ku góor ki daa judduwaat. dëgg la ku jigéen ki ne ko dooma dàq judduwaat. dëgg la ndax am ngam xar maamam xar nan tudd. dëgg la dafa am yoo xam yi dégg nañ ko di yore jigéen. Mm. ba ndogalu yàlla dikk lañ waxee te tànk ba ne fa yàllaay fay ndax ndaw si nee na àq. Ah. dëgg la ki nga takk am ak moom fii ak njaboot. Mm. am ci moom wóolute. Mm, wital ko këyit mm. na nga ko yore woon ba njaboot ga juddu mm. boo ko ni sabalee te yàlla tax mën naa continuer noonu te war du gaaw waaye bari na jigéen yu ma gis ci bitim réew mm. son nañu soono boo xay seen jëkkër leen ko teg ah, walla loolu laa la wax bu waxtaanee ci ma ñëw ah, rek ah. dama doo wital naa la këyit caat li ma def ngay def ci kër gi te ngay soxna. ah nga loolu liggéeyal di ma jox. mu jeté. liggéeyal di ma jox de liggéey di ko jox. muy béykat yi loolu la ñuy jigéen loolu la ñuy def la ñuy def de soo waxee ñu xas la. dama ne jeeg bu bàyyi ndey bàyyi bàyyi. Hmm. jëkkër bàyyi ndey bàyyi bàyyi. Ah. ngeen di société jëkkër ji bëgg laa pule te loolu liggéey wiiri ko. Ah. bu yàggee da ngay def wiiri maa. Ah. taxaw boo taxawee nag. am na lu te man alaaji gis naa fii ci Italie koo xam ne jëkkër ji ba mu ko yóbboo fukki at day liggéey di jox jëkkër ji ji liggéey tëgg euh, nu mu tuddati te tabax fii kër boo xamante ku taxaw daf koy seetaan mu nax ko ñu ñëw ba fii mu téye këyitam ak këyitu doomam ndekete jëkkër ji xottat na ko ba sew takk fii jigéen dugal ci kër googu ndaw si xaw a dof xam nga tamit yëf yi daal nañ ko seetaan. non non xam nga teraanga daal. ah ji soxna war a jël jox ko jëkkër. Hmm. mooy privilégiam mu neex ko xam ne kii taral nañ ko war naa mën a delloo njukkal. Hmm. waaye soxna boo xasee takk. Mm. la war lépp yow mi la gàddu. yaa ko war a yaa ko war a def. ni ko diine santaane boo xam ne bu dee ñëwee bitim réew. Ah. la nga doon def Sénégal munoo ko. Ah. bàyyi ko fi mu nekkoon. ah waaye foofu da nga gisee bitim réew. Ah. ngeen di sujeete ci mm. kër gi. ah nga pële ko sujeete ci kër gi. dañ lay cotiser loolu de dañ lay cotiser wax naa la ni la. xewal nañ ko. Ah. waaye bi lay rek la bàyyi tas kër ga. te Alaaji kaay kaay ma la leen balaa ñu dem revue de presse xam nga am na ci ñenn ñoo xam ne non seulement soxna si day cotiser ba pare daf ci am ñenn ñoo xam ne dañuy naan leen nga tëdd soxna di liggéey si di leen jox te loo wax ñu ne war nga ko loo wax ñu ne danga tukki judduwaat yéeme na daal ku wax lépp nekk waxkat nañu ànd dem seeti seetaan revue de presse ak Lamine Samba dellu si léegi léegi ci kàttanu yàlla jërë ngeen jëf. bisimilah mbiru Barthélemy Dias mi lëmb réew mi la Abdoulaye fay jënd ci tekki-tekkaralam bi l'observateur yéen kaay ñu ko xamal Abdoulaye fay ne ba mu demee ca sûreté urbaine dafi fa woon dara lu dul euh, seede ndax ñépp ngi yor seen làmmiñ di wax naan Abdoulaye Faye dañu koy nëbbu jant bi waaye ki nga xam ni mooy administrateur bu parti démocratique sénégalais weddi na lépp ci biir l'observateur yéen kaay ne coow li ci pëndub teen bi gaa ñi amul baag la populaire yéen kaay ne ñan ñoo am ba wàllu libéraux yi nga xam ni ñoo nekk fële ca Podor démb moom euh, cooki bi métti la ñu doon amal fële ca immeuble Tamaro euh, di makkaanum Karim Meïssa Wade euh, libéraux yi dañ fa doon xasante yattak lépp dara bàyyiwuñ ko fa populaire yéene kaay ne lépp dara waralu ko lu dul jógal ma toog jógal ma toog gi ko quotidien ne loolee moom moo fa amoon ring de boxe sax la doonoon ndax Karim Meïssa Wade dafa mëcc bënn bët yi toog di xool waa Podor ñuy xeex ci seen biir la Tribune yéene gannaaw ba mu génnee ci kaso bi moom it wax na nee na bëggul woon sax génn ndax gànn pénitencier yi ñoo ko mujj ne Malick Noël kaa ñu yëgal la ñaar ah, fii boo fi génnul danañ la yóbbu sa kër tëj la fa Sud Quotidien ne ah, élection yi am ci atum kat dafa mel ni Macky ñàngal Sall am na coalition bu dëgër boo xam ni mu ngi ci ginnaawam ah, Moussa Diakhaté borom français yi doy waar yi Abdourahmane Touré dem nañu fekki Macky Sall mi ngi dakasa ki war a dakasa kat l'observateur yéen a kaay ne Youssou maa jigéen Ndour lay wuyoo waa ji samp ndëndam ba tax ñëpp di fayi fayi mayi may ak jëpp-jëppi euh, jóge na ci biir réew mi dem ca bitim réew waaw ah, ku ci mel ni Minoury Sy l'observateur yéen a kaay ne toj na la France danañ fa inauguré sax màkkanu fekkee ma ci boole bi te dootul yàgg dara yàgg baawul dara ndax tontu du forox enquête quotidien ne penalty bi nga xam ni moom la bàyyi si signalé Karim waxoon fële ca Touba ne lim leen di defal amul benn tarixa bu mu koy defal ndax lépp lu mu am waa Touba la waa Tivaouane mel nañ ci lool Serigne Abdoul yi Sy Junior kàddoom mi ngi ne fàng ah, ci xët mu njëkk enquête quotidien quotidien yéen a kaay ne ku bëgg a xam ñan ñooy def katu penalty yu mag yi jàppal Abdoulaye Wade ak i ministre am yi ndax saa yi ñu waxee rek waxi toj toj li ci kanam raw li bët Luc Nicolaï décroché na revanche bi nga xam ni moom la ñépp doon xaar ñaari mbër yi gën a siiw ci àdduna baa ci Sénégal diggante Modou Lo ak Balla Gaye numéro 2 ko Nicolaï ne dina ko amal ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru sulet mbokk yi lii moom du ma ko wax ci suuf ci kaw laa koy wax ñépp di ko dégg ban Sénégal la ñu nekk àdduna mooy bëgg a jeex am ñu baax ñuy bëgg a jeex am mbër ñu ndaw ñuy bëgg a feeñ focus ko di nee ne li feeñ ci Sénégal mooy léegi mooy takkub suuf da ngay gis góor goo xam ni am na ñaar ba ñetti jabar dem fekk ab soxna ah, takk ko ci pet takk boo xam ni ndey du yëg baay du yëg ma yëgal leen enquête quotidien tey lim ñu xamal nee na nooto buy jamaa ma ngay toj benn xale bu jigéen bu am fukki at ak ñett la ñu fa wiyole waa ko wiyole du kenn ku dul ab cousin bu ñuy wax Amar Sow Amar Sow nag am na ñeent fukki at ak ñaar am na ñaari jabar ami doom enquête quotidien ne waa cousinam boobu la jàpp tëddee ko ba mu jëlee ci ëmb xam ngeen xale bu jigéen boobu enquête quotidien nee na ba mu wasinee amul soow sax bu mu nàmpalee doom ji ndax xale bu ndaw la sama yaram sax a ngi daw mbokk yi ay góor ñi ñoo soxor de aadame lu yéeme lu yéeme jërë ngeen jëf di remercier bu baax lamin Samba ci euh, revue de presse bi am na solo lool lool lool alaaji waaye fi mu daane lay alaaji nee na yenn góor yi néeg nañu néeguñu mm. dama laax toujours di ngeen góor bu dëkkee ci góor toujours. Mm. dina ma si def giraawaal yi. góor naa dem ba yàgg mu doon jigéen. dëgg la. luy jigéen. Mm. ki nga jur mbaa ki nga bokkal. Mm. heure bu nga dende bul doonati góor. dëgg la. xel bu dul téye ci góor nag am na lu koy yóbbee ëllëg loo xay lii piti kolaat la sori guro sore la. dëgg la laaj. gis nga yi góor yi def dëgg yëpp dëgg xam nga lu koy indee. sag ndaw. personnalité ak diñ ak bët bu rëy ak xool fu sori di ngeen dina waral yu bari yoo xa yoo xa yi dalay do da koy jomb hmm. permis bu ci gën a foor permis permis ah. xam naa bi ma am mooy ban ah bi ma am rek waaw mënoo am <laughs> <laughs> alaaj naa dawal camion de ban xanaa transport en commun ah defe naa ko de transport en commun ah. boo tëbee am ko hmm. poids la sa poids lu fi des. dëgg la da leen di xërëb lii. dëgg la gis nga góor. Mm. ak jigéen a yem. dëgg la ku sa bët rëy. Mm. ngay xool ca jant ba. Mm. am personnalité am looy jomb. dir yaa boo ñàkk fayda sax bu la rombee ngelaw la. dëgg la mu nag gone boo bi di a bokk deret. dëgg la alaaji. jigéen day rëy bët. dëgg boo rëy bët dëgg la alaaji am personnalité. dëgg la sama xel di ngay doon jigéen léeg-léeg. dëgg la waaye am na yu xew day gën a law. ndax koomutub jomb jomb mooy li ni wax mm. xam nga ni kii daa judduwaat mm. judduwaat tax mu def lii mm. xale bi mu ko def fukki at ak ñett nga bokk ak moom ñeent fukki at ay soxna ay doom noo ba ngay dem ci moom da ngaa ko nekkutoo allaaj bii tamit dinañ ci dellu si gis nga alaaji affaire viol yi dinañ ci dellu si de ndax bàyyi bàyyiwuñu liir bàyyiwuñu six mois bàyyiwuñu benn at bàyyiwuñu ñetti weer alaaji bàyyiwuñu dara dëkk baa ngi toj te lii nii dinañ ci dellu siwaat ci kàttanu yàlla allah ji dafa am ay thèmes yoo xam ne suñ ko rombee mënuñu ci ñàkk bañ a dellu siwaat comme nañ ko defee woon ca jënne yaak rab yeeg maginoy bii moom ci la bokk mais allah ji dama la wax sànq balaa caat di ñëw léegi tukki judduwaat joxoon la ci benn paquet wax la tamit ne góor ñi léeg-léeg ñoom ñooy pousser seen soxna yi di tukki judduwaat léeg-léeg lu ci ëpp nag ci immigré yi allah ji man damay waxtaan ak soxna yi léeg nga gis ci soxna soo xamante ne daf may naan gërëmal ma sama jëkkër parce que in lu indiwu ma fii di ma cotiser loo ndeysaan day fat jaan njoogu tam sir ba jaxu ba borom taata bi ma ca liil lii la ma wax ci njoogu wàkk mu ne ma indiwuma ba fii di ma di ma cotiser loo donc am na ñenn ñoo xamante ne ñoo fa indi seen soxna indi boobu ñu ko fa indi soxna si day pay day fay dañ koy cotiser loo ça veut dañuy dem ba nga xam ne loo wërsëg laa yàllaa ko yo mën naa sa yeeg yow ba pare ëpp la wërsëg loolu yàllaa koy def ñu dem ba foofu yàlla wërsëgale ma loo xamante ne xëy na yow def nga fa 10 ans fukki amoo ko iñaan dugg ci diggante jëkkër ak jabar alaaji lu fréquent la loolu tem la kañaan diggante ñaari way dencante dafa am nga gis ci kenn koo xam ne loo yëkkati mu ne loo wax maa la fi ndi ah, yow yaa maa tax nga nekk maa tax fekk ne yow xanaa dañ la jël mbubbee la coloré la affaire bi rek waaye lépp yàlla la yàlla waxoon ni béréb sàngam ba sàngam daa fa teg sama tànk lijjanti nàngam suñu borom bi joxee ma ko nii si coobare ba kër ba may ñibbi kon nañuy bàyyi di aaki moo ñëw yi nañuy bàyyi di aaki moo wërsëg yi naan yow maa la defar baat bu rëy maa tax nga ne baat bu rëy kon loolu allah ji dina favoriser li ñuy wax ne soxna yi dinañ tukki judduwaat fekk na du seen coobare waaye nag gis nga gis nga euh, muus wala picc mi picc kese laa la wax dugal ko ci fii rek di ko bundu xataal day gëstu attaqué la picc day gëstu attaqué la ndax gunóor benn der la loolu tamit nañ ci bàyyi xel. waaw xam nga gis nga diggante yàlla sax dafa am fu muy jaarale. Hmm. ki nga takk te bi nga koy takk yorul. Mm. waaye am na ngor. Mm. nga takk yóbbu ko bi paraab. Mm. mu dégg dee li am wërsëg. ci yow la ko yàlla jaare la mm-hmm. waaye bàkkul ne. li ko yàlla defal man nii la ko defal. waaw kay. ndax daaleem ci man la jógee. waaw kay. ñaara ngi ci biirub say aar bu feeñee. xeebal yabeel dëgg la. lu jabar man am ci àddina mm. boo fekkul dir yànk bu yor yëppam mm. nga takk jigéen te yorul mm. bu dee bay nekk ci donkaay si gi la mu yor boo gémmee sunu borom te ndaw sa wëlbudi war jébbal la boppam yaa moom lépp yaa yor say caabi waaye xamal na ngay ubbee ak na koy yore dëgg la ku yor jigéen boo sa yor ma avancé dëgg la laaj nu muy avancé mel nu mu mel loolu waaye yaa tax dëgg la waaye yéene ko te na nga dogalu suñu borom dëgg la dëgg la laaj te bu génnee dañ naa soxla dëgg la laaj ñu naaka jekk ñu xanaa xamu borom këram. ndeysaan ak ko yéene. ndeysaan lu ma am moom la. saan dafa am yoo xëy na yett bu lalee cib sëy. Mm. laale ko day gaaw. dëgg la. xool lu jigéen am sa bët tegu ca. Mm. aka fi bëri. xool lu jigéen di seere nga tegu sa bët. aka bëri bitim réew. jigéen dem ba yàgg mu ne war a ñu wëlbati ko at fi ñu toll ëpp la maqaama. Mm. boo gëmul yàlla am mooy def te yàllaay joxe te yàllaay joxe waaye bari na góor yu sax nag jigéen <laughs> ah. jigéen ah. du ñu toog ba jigéen ëpp leen maqaama seen jabar nee ma lu tax ki baat nee ma lu tax baat koo teral mu hmm. rus la dëgg la koo teral mu jomb la dëgg la nu mu lay jombe dëgg la jomb laa def lu bon dëgg la dëgg la dafa am loo xam boo ko defee soxna bis bu amee nag taxaw dëgg la laaj jigéen danga koy yor dëgg la wóolu ko dëgg la defar ko ah. ubbi ko tëj ko tijji ko macha allah woddu ko allah macha allah alaaji xoolal bu bëggee bañ tu nga ni déet soxna si dëgg la dëgg la di sëñ bi baal ma dëgg la jéggalu jéggal naa tuubi ruubi am déet waa teg ko foofu bàyyil ñu dem <coughs> jëli caat seetaan reportage di sa préra ñëw léegi léegi ci kàttanu yàlla ak yéen bu leen bougé ndax émission bi seen émission la jërë ngeen jëf repérer ce qui est nouveau et déjà indispensable. Jong et dans vos marinades. Une vraie jongé, c'est juger la beauté du goût. Jongé tomate dans vos tierboudiennes ou vos tierés. Un goût supérieur d'épices naturelles, une couleur appétissante, adaptée à chacune de vos inspirations. Avec Jongé épices et Jongé tomate, entretint toute son harmonie. Avec Karoskin, j'hydrate ma peau en un seul geste pour lui redonner tout son éclat. Et ça se voit. En plus, ça sent tellement bon. Karoskin, quand la nature vous rend Un produit consacré toute ta vie pour la famille. Tu as tout donné sans rien garder pour toi. Tu aurais pu faire ta vie aussi. Jalel, surtout n'oublie jamais que je t'aime, ok Moi aussi je t'aime, ma chérie. Nial, ça suffit, s'il te plaît. Mohamed, promets-moi si un jour... Si un jour tu ne veux pas t'occuper de moi, ou que tu n'as pas envie de me voir, je t'en prie, Mohamed, promets-moi... Promets-moi que tu seras quand même présent pour ton fils. douce de toutes les fleurs du monde entier. Je t'embrasse très fort. C'est honteux que tu fais là. Tu ne vas quand même pas espionner une vieille femme. C'est ça, et quand ma mère nous ment, pas Oh ma puce Salaud Vous payez pas jusqu'à demain, vous serez exclusif de France. man lii moom ànduma ci sa morom yi dugg ci dëkk bi di ko lijjanti ngay nelaw rek dinaa la jël si 19 heures nga sañ si dama am anniversaire bu ma yóbbu yow. dama la dugal ci lu bon ndax sama doomu nay nga yow tamit. man mënuma jël risque di ànd koo xamante ni la confie bi xam nga lan la victoire xam nga nit ñi dañu bëri dañu dañu am cat maa ngi yow. nii fi benn Que représente la mode pour toi C'est un rêve, le euh, métier du mannequin. parle toujours de ça, donc après, si tu me parles de tout ce qui est saints et tout, je pense ni qu'on dans ta mm-hmm. que le parle, tout ce qui est glam, tout ce qui est beauté. Parle-nous un peu du face painting que je pense que tu es quasi la seule à faire au Sénégal. Je m'inspire euh, des personnages de Walt Disney, en l'occurrence Hello Kitty, Timon, Pumbaa, en fait les personnages que les enfants connaissent. des bons plans pour faire. vraiment euh, c'est bi lay fi un peu frais. donc il faut plus ñu dem ci côté euh, couleur du gris, du marron, et puis yi nga xam ne pas couleur été yi. d'accord en fait sañse u bëgg sa La lecture chez Valérie Larbeau, c'est un vice impuni. Pour Descartes, c'est juste une conversation. Sur la TFM, avec votre nouvelle émission L'Art, ce sera aussi un moment de découverte. Ensemble, nous allons lire. apprendre, mais aussi retenir. Vous aimez la lecture Vous êtes un rat de bibliothèque Préparez-vous, l'art arrive. Chaque quinzaine, l'art ira à la découverte d'un livre avec un élève vedette. Peut-être ce sera vous Avec l'art, lire devient plaisir. man capitaine PK alias le penseur qui met KO. man Pierre Sy ancien international football. man Jaagar Jaagar. école de lutte Aliou Seye. man Elton le bulldozer de Guédiawaye. maa ngi seetaan. l'œil du tigre ak Moustapha Gueye. ci TFM. lan mooy l'œil de tigre. c'est un animal très féroce euh, rapide et qui voit de très loin. grand lan mooy l'œil du tigre. ça peut être un nez qui sait scruter mooy xool lu sore. xam naa tigre mais xaw ma lëy. un nez boo xam ne man dafa raglu. qui fait peur à l'adversaire mais l'œil tigre mooy lan somme toute l'œil tigre c'est quelque chose d'important et c'est un regard boo xam ne wuute nag suñu regard le tigre voit loin le tigre est un animal féroce qui va vite et qui ne jamais sa proie ah gars yi sëgg ak gis-gisam war na tigre mooy émission bëree dañu daan xaar nga dellu si sargal waajur yi ak mbokk yi maanaam dog bu mu gàcce yi loolu tax ku daan dem dañu lay tàcc wax yow ngir nga bañ a tukki judduwaat teewul ñu bare di réer bu ñu xasee génn seen réew. waaw man euh, yaakaar naa loolu moom lu waral lool c'est surtout nit ñi euh, amuñu base culturel yu dëgër yoot buy tax ba fu mu dem dina xam boppam. léeg aussi nit ñi day day fàtte boppam quoi ba fu mu dem rek après day làng foofu quoi yaakaar ni peut-être affaire bi foofu la alors que il faut toujours se ressourcer quoi yaakaar naa nit boo xamee fu nga jógee nga xam sa bopp nga xam nga ki nga bokal foo dem mais vraiment doo doo changer. am ñenn ñi li leen ciy dugal mooy alal ak am bu gaaw mais par exemple je crois buñ la yaroo ci diine yar la ci yu bëri fii ngay dem warul mën a tax nga dem bëgg a soppeeku mais gis naa ñoo xam dañ juddoo Europe. boo nekk Europe ak li fa am yëpp mais ñoo gën a jub ñi nga xam ne dañoo yaroo fi parce que man gis naa ci benn xale boo xam ni mais ci jàkka yi boo demee fa la yaroo mais bu ñëwee vacances :fra mais :fra moo jiitu ci jàkk ji changé :fra wul dara ci jikkoom te mi ngi yaroo foofu màggee foofu mais nit mooy nit rek ni nga bëgg a mel yaa koy melal sa bopp rek mais kenn yarul la ci loolu puisque :fra sa waajur yarul la ci loolu soo demee nag changé :fra changé :fra bi changement bi nag lu ko waral mooy am-am bu gaaw bi moo baaxul moo leen di dugal ci baree bare bi tukki judduwaat naam lu mën a ñàkk la waaye laaj bi taxaw ci phénomène bi mooy ana lu tax nit di génn réewam rek soppeeku. ah xëy na beew la léeg léegi dañuy dem takk fa nasaraan beneen nasaraan mu jox leen beneen xel ñu mel neneen waaye de ku ci am sa ñaanu waajur yaakaar naa boo demee doo change bon man je pense que ni nit ku nekk war nga mën a génn dem sa mën nga war nga mën a génn sa réew dem wuti ji Euh, mais à chaque fois aussi booy copier del copier lu positif ngay copier lu positif baax na quoi et puis ñu bañ a complexe bu ñu demee wutu ji après bu ñu amee lu ñu lu ñu bëgg teral suñu waajur bu ñu paree ñu ñëw fii nii. yar bi ñu leen yoroon fii moo des ndax nit ku fekkee na yaruñ ko ci alxuraan bu génnee lu ko sànq dafay dafay yomb bu fekkee ne nit ki dañ ko yar ci ay waajur bu gisee waajuram def lu baax bu gisul waajuram def neneen yar boobu baaxut. mais nit ki bu ñu ko yaree ci diin lislaam yar ko ci alxuraan fépp fu mu mën a nekk dootul xool ne bàyyaa ngi fi dootul xool ne ku koy waxal mi ngi fi mais day xool ne yàlla mi ngi fi. façon réer yi nag bare na am na ñoo xam ne seen aada dañ koy fàtte bàyyi seen cosaan dem sax ba seen diine daanaka dootuñu ko farataal ñenn ñi ñoom dem sax ba faf lan fa ñu dëkk fàtte fa ñu soqee ko waaye ni ko woykat bu waxee. ku dingat sa réew dafa fekk yow da réer jërëjëf kon euh, waa Dissa Préra ñu ngi koy remercier bu baax ba tey rek di leen fàttali thème euh, de la semaine tukki judduwaat ba tey Fatou Bakala macha allah ñu am mbégte nag dalal seen caat suñu caat Zeyna Zey. Pape Ndiaye fay naa la nuyu naa tamit téléspectateur Carlok seen télé di seetaan Wareef baax ku ci nekk sa tur sa sant tukki judduwaat caat balaa ñuy dem ci sa reportage dégg nga sànq ba léegi bi ñu fi toogee ak Alaaji gis nga léegi reportage yu di sa prérarib léegi euh, ma bëggoon la wax tamit Alaaji euh, sànq maa ngi doon wax ne soo ñëwee dinaa leen interpeller en tant que jeune parce que ñu ci bëri euh, dañuy faral di wax Alaaji ne xale yi la ñuy yaakaar ne ku ci dem da ngay tukki judduwaat parce que xale yi xëy na ñoom ñoo bëri ay bëgg-bëgg xam nga wala boog xale yi ñooy teg deal parce que àllaaji bul fàtte xale yi dañuy teg ay plan daf ci am ñenn ñoo xamante ni kaset la ñuy xamante ak nit ki wala boog Facebook wala boog internet ani li mën a xew yépp ba pare nag taxaw xale bi taxaw ne ko su dee dem rek li ma li ma bëgg mooy ku ma génnee dëkk bi kon loolu balaa may jox Zeyna ca euh, kii Alaaji ñooñu lañ doon xalaat ci tukki judduwaat maanaam génn kanam bi ñuy wanee fii waa ji ba meet ko suñu génnee beneen kanam lañ koy wan ko jikko bandinétisme am na ci ñenn ñoo xam ne fu ñuy wàcc muy France muy Italie wala Espagne wala dara xam nga lu ñuy jàpp point de chute rek la pare dem feneen balaa ma jox Zeyna xeetu tukki judduwaat yooyu déggoon nga ko waaye léegi yu màggee te li ñu gis jekki sëy di ko def. waaw xam nga gis nga dégg na xale moom. Hmm. ak kenn leen di siise muy jikko dëgg la mag dina ñàkk jomb dëkk ci lu bon gone jomb jomb jomb du def lu bon mm. am na xale yu tukki mm-hmm. jàppale seen jëkkër mm-hmm. ba ñu niwaat leen fii ci réew dëgg la am na mag ñuy tukki mm. ku seen jëkkër trahir leen dëgg la lépp ngi ci jikko dëgg la dëgg la xale bu jikkoom rafetee day yedd mag dëgg la la gis ne ngoom gone di yedd mag ndeysaan gone di yedd ndeyam dëgg la yaay di li war a ko woon a def nag yaay li dëgg la du du sa cër yaay nangam li du sa cër dëgg la am déet dëgg la dafa am yoo xëy diggéen damay tànk mm. jikko yu mënuñu koo laabal mm. mu set wicc mm. am lu ñuy jomb am lu ñuy ruus gone mag a ci yem ku yóbbu boobu jikko nag foo dem di nga judduwaat mag a ndaw a ci yem kon caat tukki judduwaat euh, tukki judduwaat bi te tey sax ni nga koy faral di waxee da nga sàq sàkkal ñu sama layt mm-hmm. loolu la mm-hmm. loolu ngeen may mm-hmm. benn paquet boo xamante ne tamit nag bëggoon naa ci dellu si ndax dafa am téléspectateur bu woote sànq téléspectateur ne soo demee boo amul na nga am sañ-sañu wax say parents ne amuloo mhm. parce que yenn saa xale yi dinañ tukki mhm. mais judduwaat boobu ñuy def mhm. c'est parce que dañ leen koy imposer dinaa jël exemple wu euh, ñi ngi doon def euh, benn thème boo xamante ne ñi ngi doon wax ci xale yi nga xamante ne dañuy dem Canada suñu demee mujjee nekk ay stripteaseuses di liggéey ci baar yeeg yooyu ngir mën a eggali seen jàng euh, xam nga Tata Déguène ñëpp a bëgg seen doom tekki ñëpp a bëgg seen doom jàng dans de bonnes conditions mm-hmm. mais yow loo xamante ne du wëy en mm-hmm. tant que waajur mm-hmm. waroo ko tàmbali ndax xale bi nga xamante ne jóge na Sénégal doog a majeur am juste 18 ans nga jël ko génnee ko cay bëgguma boobu génnee ko dëkk bi ba pare xëy na nga fayal ko juste une année d'étude wala nga fayal ko juste beneen bi nga ne ko débrouiller waaw mu dem nga ne ko débrouiller ba pare nag teg si am ñoo xamante ne dañuy bëgg nga di leen yónnee mais kooku saf nga ko tataa dégg su la joxul xam nga xam nga baatu baatu yaay bu wax sa doomam wala papa bu wax doomam da nga ñàkk jom amoo benn fulla mhm. say moroom yi ñuy def Euh, see seeni waajur defaloo ma ko xam nga loolu dafa di si mbaggu doom loolu bokk na ci li nga xamante ne yenn saa yi day tax xale yi judduwaat def loo xamante ne neexul leen te gis nga loo dem ba yàgg ci tataa dégéen mu mujjee banaal ci yow mujjee doon sa jikko mm-hmm. nga judduwaat nag ñu àddina mbamb la mm-hmm. wala xëy na boo ñëwee Sénégal teral sa yaay mu bég lool ci yow mm-hmm. fekk ne yoon nan nga koy amee amee waaw fekk dee nga fekk dee nga loolu tataa dégéen war nañ ko seetaan te am na si jigéen yu bëre tamit sànq yaa ngi koy wax jigéen ñi sonn nañ dee nañ mm-hmm. parce que xam nga Sénégal mm-hmm. li yàqu deru jigéen mm-hmm. moom moo gën a yomb lu yàq deru góor di nga am sa jabar Sénégal fii jël ko yóbbu ko mais yóbbu ko xam nga dafa am yoo xamante ne bokkul ci suñu culture jigéen sénégalaise ak nu mu moderne moderne moderne xamul 50 pour cent 50 pour cent. xamul loolu parce que yaruñ ko ci yow nga jëlee sa jabar Sénégal yóbbu ko Europe bëgg muy cotiser image yow bu bu bu fayee euh, luwaas boo fayee luwaas moom mu fey xëy na jàngu ek xale yi boo raxasee moom mu bale tata dëggeen mais kooku soo ko bëggee tëri liggéey wala nga bëgg ko fatt mënul nekk. non parce que cotisé yooyu daf koy jox ay droit comme góor daf koy jox ay droit parce que fii leneen la ñu xam. voilà mënul nekk diine bi tamit leneen lañ teg. voilà te te xam nga jigéen ñi yenn saa dañuy sóoraale lu bëri ndax comme dem nañ bitim réew. Hmm. ñu naan lu yàq deram yomb na dañ mën naan euh, da nga ñëw ba fii euh, am sa teraanga bàyyi sa jëkkër yooyu yëpp dañ koy calculer di ko wanaasu mm-hmm. xam defe naa ne nag tam bu mel ni dina leen dimbale te góor ñi tamit xippi seen bët mm-hmm. ndax koo xamante ne yaruñu ko ci cotiser mm-hmm. xamul cotiser culture am xamul cotiser nga bëgg dem ba foofu ñoo bëgg ko imposer loolu bu defe naka sa dul noonu nga ne dafa judduwaat mais judduwaatul yow yaa judduwaat parce que yow yaa jóge Sénégal xamuloo cotiser bëgg dem foofu di dëgg la mais alaaji pour ba tey ci paquet yi euh, bëri na sax góor ñoo ñu di jiiñ seeni soxna ci tukkikat yi ne tukki judduwaat ñoo xam ne ñoom seen jëmmu bopp soxna yi dinañ leen tiim euh, dinañ leen ko jiiñ supposons soxna si des fii yow nga toog ak na ngeen toogee na ngeen déggoo ba nga dem ba nga ba nga ne da ngay wuti am na ci ay góor yoo xamante ne du ñu nëbbatu seen soxna waaye am na ci ñenn ñoo xam ne dañuy dem supposons pour ñu ne dañuy bëgg am kayit mu yomb leen ñu takk jigéenu foofu su ñu takkee ni jigéenu foofu xam nga jigéen dafa am doole ci góor alaaji commencé am jikko foofu su ñu naanul woon ñu commencé naan su ñu amul woon benn vision bi ñu commencé am vision bi commencé soxna si leen su leen doon dégg benn yoon par semaine dinañ commencé benn yoon par mois jóge fa benn yoon par six mois jóge fa ñu toog ay deux ans ñu joxe seen nouvelle tellement soxna si ñu dundal foofu muy française wala italienne wala américaine wala lu mu mën a doon bu fee na seen vie jël na seen temps soxna soo su dee mag sax xëy na moo tane su dee xale toll ci jur mu commencé di jur waa ji vie bi nga amoon fii am fi doom am fi soxna dootul joxetu nouvelle complètement day demit tamit lu ci ëpp ba nga xam ne dafay xeeb ñi nga xamante ne ñoom la bàyyi fii am na fi ñoo xam ne alaaji te lu ñu yónnee papa ñu yónnee yaay taluñu dóor de dara parce que vie ba ñu am foofu soxna ñu am foofu moom la ñuy mooy jël seen vie carrément à 100 pour cent kon nag ni jigéen di tukkee di judduwaat ñoom ci seen gis-gis bëri na ci yenn góor yoo xam ne noonu la ñuy tukkee judduwaat am na ci ñenn ñoo xam ne alaaji bitim réew moo tax ñu xam naan bitim réew moo tax ñu xam drogue bitim réew moo tax ñu nekk dealer bitim réew moo tax ñu nekk jënki yooyu yëpp ay xeetu ay ay xeetu mm, mm, mm, façon transformation boo xamante ne nekk nañ ko te li ci ëpp seeni soxna moo koy xam di ko dund di ko subir xam nga laaj dara gënul metti nga toog ay bés gisuloo sa borom kër dem di ko wëri ca bërëb yi nga xam ne fa la drogue yi di ne nga dem xëcc ko fa ay doo yaa ngi ay doomam nga dem xëcc ko génne ko ci situation ñëw di ko indi yooyu ay mbir yu metti la yoo xamante ne soxna yi ñoo koy jund te it am na ñenn ñoo xam ne ñu ngi ne bitim réew laa nekk doomu nit ku baax laa waaye kenn gisuma fii mën naa fi def lu ma neex loolu tamit defe naa ne erreur bu mag la alaaj ci ñu koy dund waaw xam nga gis nga déggan gis nga déggan tukki euh, jigéen hmm. lu ko tuumaal daa yomb dëgg la waaye lu ko tuubal yomb na lu ko tuubal déggoo li ma wax de ah kay li ko tuumaal yomb na waaye tamit li ko tuubal yomb na euh, gis nga tukkikat hmm. ci góor hmm. li ci ëpp léeg-léeg ñu tuumaal jigéen seen soxna lu nekkul boo ko gëstoo te tax soxna sa amu fit ñoo leen ko may dëgg la xam nga dégg ngeen wax dëgg yàlla euh, lawan buñ ko dindiwul hmm. jaay nu ko wanteeruñ ko hmm. soxna soo yor war a xam malheuram dëgg la laaj dëgg la dama ne hmm. cotiser société defal ma def raxasal ma raxas bu xewee ci kër. Hmm. ñaari tuba ya fa ne waaye si néewatu fa. dëgg la laaj. amul loon bu jëkk dëgg la. dangay ngay daan sa doole. Hmm. dundal sa njaboot. Hmm. jaay sa yére ñëw. dundal sa njaboot dundal sa soxna. boobal bu dugg waatee nag nga jël sa soxna daggal ko bii bu fekk si la. condition yaa ngi ko tegoon ca Sénégal. boo ko ca tegee. am na lu ne ci xelam loo xay lii bu ca nekkatu ko gaaw a jëf. waaye bari na tey looy tuumaal jigéen ci bitim réew. Hmm. bu la jigéen ji waxee fa mu jaar ak jëkkër mën na ko tuumaal te du ko yey. dëgg la. nun tukki nañu. dëgg la laaj. gis nañ ci yu bari. dëgg la léeg-léeg nag def mbir moo xëy góor. Hmm. day xaru. dëgg la moo koy desee. dëgg la waaye léeg-léeg góor def jigéen loo xam ne dee koy gënal. dëgg la ji dee dëgg la ndax yër say doom ci bitim réew. Hmm. doo gis sa jëkkër mu takku la mën a ju te déggu leenu laak bokk leen làng. dëgg la. ndax këyit dëgg la wax naa ne la këyit su barkeelul kër du fa juddu dëgg laa laaj këyit su barkeelee kër lay wuyu dëgg laa laaj ku tukki yàlla la yëkkati bu gëmee yàlla dëgg la am loo indi dëgg laa laaj nga dem ba foofa nag takk koo xam ne kii mën na laa jur mbaa yéen a tolloog jamono dëgg la nga bàyyi fii soxna ak ay doom dëgg la woo ko mu ñëw fekk si la ak say doom dëgg la nga bàyyi kook doom yi mm. bàyyi koog kër ga mm. féete kooka waaw féete leen làng fépp leen leneen féete ak nasaraan sa demee ko nag dëgg la ni ko jàppal ci lii la doon borom kër boppam dëgg la doon nguuru boppam waaye du doom jëkkër mais alaaji man gis naa kenn koo xam ne sëy dama lay jox benn paquet gis naa kenn koo xam ne jabaru nasaraan si mu takk moom dafa imposé soxna si fii de soxnaam la imposé fii ak njabootam ne ko at mi ki ma takk borom alal la dina ci ñëw vacances benn yoon su ñëwee ci kër gi laa koy dal te danga koy naan sama mindaan nga. waa laaj. Ah. te waaw soxna si d'accord si. soxna si d'accord si xam nga baax li ma la mais loolu xam nga dafa am góor yoo xam gis nga laaj mbubb mii nga sol. soo ko nattee jekkul ci bu ma ko sonal man mi waaw li tax sax dafa gudd fii explique mais loolu am na xam nga baax li ma la dafa am yenn yoo xamante ne ñu ngi koy dund fii ñu ngi koy gis fii ci xeetu góor yi nga xam ne ñu ngi tukk ju waaw oh, xam nga xam nga loolu moom dañ koy faral di gis bu baax a baax hmm. mais finalement je me pose la question à savoir ndax couple noir bi ñoom ñoo teg diil tubaab bi wala ñaar ñi la ñoom ñoo teg diil jabar bi nekk fii hmm. parce que sa vrai en tout cas góor bi moo nekk ci diggu diil moom moo nekk ci diggu diil bi mais kan lañu teg diil ci ñaari jigéen ñi xaw ko en tout cas les femmes sont perdantes dans tous les cas hmm. elles hmm. dans tous les cas te dafa am mbir yoo xamante ne tamit na tata dëggeen xaw ma nan la ko jigéen mënee nangu parce que judduwaat tata dëggeen c' est que nit ki mën nga ko accepter ak i défaut mm. nit ki bu demee changé sax mën nga ko accepter xëy na mm. dina ci am yoo mën a accepter mm. mais tata dëggeen nag jigéen dañu takkal la wujj fële nga ñëw ba pare ñu lay nëbb teg si na tata dëggeen man loolu xaw ma judduwaat boobu naka lu ko jabar mën a accepter ba pare nag loo ci def ñu ne da nga teg der de ah. allah ji nga loolu waaw xam nga ne gis nga tam dëgg am ñu lu ñu leen teg jaadu na dagan na lu tax dañoo xamul lu ñu war a jar xamuñu wëlër xamuñu fu ñu jóge gëmuñu seen bopp mooy loolu. dëgg la ki kër gi. Mm. mool mool yi. Mm. teel ciment bi. Mm. dem clinique neuf mois. waroon dem bar sax yàlla ni déet. nanguwuma. nga di waxaar ci kër gi. bu takkee soxna ku mu mën a takk. kenn riisul ku dul yàlla. dëgg la boo nekk cëpp damaa dawal mbindaan. dëgg la. kii la indi doon soxna. dëgg la nga tur duuru. nga génn sa néeg nga génn sa néeg. nga génn sa néeg nga tëral ko sa néeg. <laughs> dama ne soxna soosee. Ah. lu ko waaye def dagan na. Ah. te borom kër gi du ci am bàkkaar. Ah. nga déggan say neex na trop waaye nañ joxante ay cër. nga xam sa bopp. ay cër rek cër dëgg la laaj. déggan jigéen ji nga say indi ko si biir kër gi. Mm. jox ko palaatam. dëgg la laaj. bi ngay lekk. ndeysaan jox ko cër. bi nga am fexeel ba teg ko ci condition yoo xam ni boo liggéey. ndeysaan bu xelam bëggee nekk sax teg la fa sax dee ni déet fi ma teg waaye am na loo xam ne jigéen ju ko nangu dagaan ko ko bu di lu mu la gisee la lay ëwee ndeysaan ndeysaan ndeysaan waaye loo yenn saa yi nag jigéen yooyu jar nañoo bàyyi xel te jar ñoo moytu parce que sànq dafa am paquet boo andi di wax jigéen ji nga xamante ne dafa dem bu foofu soppeeku carrément jigéen bi mën na doon yooyu mooy revanche mën na mën nay xaar revanche am mm-hmm. mën na patiente mën na toog di xaar doon yeerukat di fayu di di xaar bés pour mu fayu mm-hmm. xam nga yooyu tamit dafa jar di calculer te góor ñi tamit bi ñuy def yenn yi war nañuy sóoraale mm-hmm. ndax nit ki mu mënoo dëkk ci di ko teg nakar mu di ko muñ nga defee ne rek lépp naturel moom daal mooy sama yaama neex lu ma ko def nangu na yenn yi war nañ koy xoolaat bu baax ndax jigéen yooyu tamit yenn saa yi mën nañ dangereuse mën nga xëy na ñooñu sax duñu fay yàlla leen di mm. bu dee dëgg ci ñoom mm. gis nga ki bëgg sëy te sëy si lu ma gis xam nga koy yenn. Mm. saa borom. dëgg la laaj. xam nga ku mu yen ba. Mm. te du mm. koy teg muy jëkkëram. dëgg la muñ kat. muñ kat boo ko muccu mu la mu gaañ la. dëgg la. jabar joxe loo bale jox ko. ndeysaan loo bu xëpp ko. ndeysaan loo neex wax ko mu ni mu ni sëm. ndeysaan nangu lépp. ndeysaan moytu ko. dëgg la alaaji moo lay lakk sax. moytu ko moo lay lakk. yaar dina ci am bu pundi bi wuree. dëgg la la nga lu sax. dëgg la sag dem du àgg. ndeysaan di nga am loola dog ndeysaan su mujj rafet alaaji am na fi ay góor yoo xam ne mënuñoo dégg daal yi ñoo xam ñu tukki fii ci réew mi wala tukki bitim réew mënuñoo dégg daal yi ndax àq gis nga àq soxna yii fa tubaakalla macha allah alaaji too àqu soxna yi yow ma nga xam ne tukki nga judduwaat nekk ci réew mi wala boog parce que nag alaaji tukki judduwaat nee naa la paquet du jeex de am na ñenn ñoo xam ne fii lañ nekk ci ci ci dëkk bi tukki judduwaat yow fa nee naa la démb jugal jugal jugal kokki njaga isa jéey sax wala nga jógee Bignona wala nga jógee Diourbel rek wala nga jógee Kaolack wala fenn ñëw ndakaaru rek nañ la affecté rek am na ñoo xam ne affecté rek la ñu bëgg suñ leen affecté rek seen soxna la ñuy njëkk xeeb seen soxna la ñuy njëkk xeeb naa ko yow xoolal ni nga day ah mi ni nga may nii xam nga de yow mënumaa ànd ak yow fenn dem uti moroomu Zeyna mii takk ko ne kii la ñuy àndal réception kii la ñuy fekk ne jigéen ja ca mbaaxam ca muñam moo liggéey la indi réception tey ak a bëri ñett jigéen. day hmm. bankal après ñu dem. bankal jigéenu sens. sens da nga wax. jigéenu xaas. Hmm. jigéenu prix. bu la ci gënal yow. jigéenu xaas. cay xaas. luy xaas xaas mooy baatin. moytu boo ko moytuwul mu lor la. ndeysaan bari na fi góor ñu déggoon deewee ba yàgg ba ñu torox. dëgg la sëriñ bu ñu dem du ñu dimbali. déedéet yàlla leen jëpp. léeg soo soo soo. xoolal kaay soo dajee ak borom xalima sax mu naan soxna sa nga tooñoon. ñaari muñukaay yi benn ci gën a danseere. Mm. góor mën naa muñ. Mm. waaye bal la boo amul puudar. dëgg la jigéen mën naa muñ. sax bu tiiree mu daal dëgg la bari na góor ñoo xay fii te lu ñu witi am ko lu ñàkkub dépense dëgg la nee ma lu mm. def lawar seen kër dëgg la jël pouvoir jox ko seen soxna dëgg la jigéen dëgg neexal sa jabar wallaay wala ñàkk fu la laa ilaa tuddul neexal ah. neex la la dëgg la neex tuddul neexal de nu tudd neex la la wallaay allah ji te du tere yaa nekk baat neexal ah. ki neexal bu fayoo nga xam mm. neex la la dëgg la te te ku la nekkal ba ci nekkal la guddi dama toujours ne la mm. sa soxna bu nekkee ca lee reeloo ko fekk ko ca waa ñu ne ko soxna su la xew. Mm. te dangeen booj. Mm. jonge mm. yaatu war na góor de. regaju war na góor war na góor war na góor. waaw ah, kay. nee ma lu ko indi. lu tax takkusaan jot na noor nañu. ah bul yàq sa guddi bul yàq sa gaay li jigéen war a préparer la góor war a. ah waaw c'est nag góor ñi léegi àllaaji soxna yi ñooy préparer ay yi te góor ñi duñ préparer ay moo tax gis nga àllaaji ah. biñ fi doon def émission boobu sëy ci affaire wu nangu. Uh-huh. dafa neexul ba neexul rek. Uh-huh. waaye benn soxna daf ma ne soxna dégg ngeen ma ne ko naam. mu ne mënuñu yendoo li ñuy yendoo ci fitnaak saagaak dóor ak xol bu tàng ba pay guddi guddi guddi lépp di yomb góor ñi nañuy préparé am nañu jigéen yoo xamante ne alaaji li ñuy yendoo li ne seen xol yi guddi ku leen wax bu ñu fanaanoo jógi wala boog nañ ko nañu joxe seen bopp na mu na mu gu na mu waree ndax loolu loolu kon da jigéen moo tax li nga wax nii dafa war góor jonge wax ju neex baat bu neex mu neex ci personnalité ah, bopp daal ñetti la jig ah. mbedd bureau. Hmm. mbooloo. waa laaj man dama lay laaj sax balaa ñuy dem seetaan reportage yu sëñ yéen lu tax ñun fu ñu toog di leen di utal ay wax yu neex. Hmm. ay baat yu neex. Hmm. ay tur yu neex. ah xam nga ñoom sëñ yi ñu yi ñu méngool yéen mooy lan ay yan. Ah. ay bouchou ça dépend. ça dépend yéen wax leen yi ngeen di wax. yéen saa yi sax mën nga wax négro. waaw. Butchou. Butchou chéri chéri mon cœur mon petit cœur my sweet honey. Ah, yooyu yëpp da ngeen di ko wax ñun ñu dëkk ci wax ju neex léeg-léeg ñu naan sang bi. Mm. léeg-léeg ñu naan gis texe lii léeg ñu naan benn melo bi mm. léeg-léeg yu neex yi ñu leen di wax mm. waaye yéen gisuma ci kenn koo xam ne nag yaa ngeen di wax soxna yi utal ko tur yu neex. Ah, kay ah yow nooy utee yëpp. àjjana. ay waay alaaji àjjana kon Ndeye Ndiaye ma àjjana. mooy liggéey àjjana ay waay alaaji yaa baax. <laughs> na ñoom ànd seetaani léegi xam naa ne madame Thiam ndey moom mu ngi dee nañu ànd dem seetaan yi léegi alaaji jigéen ñëpp léegi nañ leen oowee àjjana wala ñu grève alaaji gis nga grève jigéen ñi ak pancarte yi maa ko yëkkati de àjjana wala ñu bàyyi <laughs> nañ dem seeti reportage yu caat dellu si <laughs> ñu bëri dañuy dem ba mu yàgg ñoom am xaalis nit ñi gis ne dañu changé mais man je ne pense pas que nit ñi ñoo changé c'est que seen situation mooy tëddee noo xamante ne après ñoom dootuñu mën li ñu mënoon démb ñu ko mën tey donc yow yaay essayé xam ndax nit ki xaalis bi da ko changé man sa ne crois pas trop dama naan juste que rek dafa jóge ci benn fànn dem ci beneen boo xam ne da ko permettre lu mu mënoon mënati ko donc ni mu doon fréquenté gars yi ni mu doon toogee seen biir ni mu doon doxalee dootu ko mun doxalee donc am na ñu naan dafa man je pense pas que dañoo changé genre ñooñu. waaw c'est normal parce que yenn at yi ñuy def foofu xam nga topp rythme tubaab yi liggéey beeg ñaata at nga toog ñëwoo Sénégal da ngay dem ba lu bari da nga koy fàtte daal da ngay adapté wu ci ñoom daal. bi nga ñëw am bon foog nga changé parce que fii foog mu changé peut-être am na loo daan nama lekk munoo ko woon lekk. diñ ko commencé lekk am na loo daan bëgg a sol doo ko mën a sol diñ ko commencé sol xam nga bëggoon nga kër buggoon nga oto buggoon nga vivre comme sa yenn moroom yi ni ngi leen di gisee mënoo ko woon boo par la suite boo demee ba am sa xel si loolu lay njëkk nekk léegi nag foog nga changé bu boobaa nag boo changé ñi la xamoon bu njëkk ba dañ naan bon am na ñoo xam ne dañ koy gisee nii am ñu ko gisee neneen parce que ñenn ñi dañ naan c'est normal ñeneen ñi dañuy gis ne danga nga commencé rëy di fuuy alors que c'est pas avant ñuy dem extérieur fii lu ñu xam d'abord te am na benn dund boo xam ne jot nañ ko fi dund fii nii peut-être là-bas bon quoi fii nekk Afrique la bokkul ak foofu bu dee am na benn dundin booy dundee foofu musu mënuma gis ne foofu da ngay dem foofu dund benn life boo xam ne boo ñaata dina tax nga am benn changement quoi si t'as des changements booy ñëw da nga ko war a bàyyi parce que fii nii dafa am ñu xam quoi. dem tukki warul tax nga changer sa comportement ci sa sëy ci ñi nga xamante ne yaa nekkoon nag ñoom say am di jàmmeek yooyu yooyu daal man pour man daal loolu warul mën a nekk daal. jigéen boo xam tam dafa am jëkkër changé nit ñi naan ñaan dafa changé mais pour man loolu du changement da nga am jëkkër nekk ci néegu sëy am lu sa jëkkër di bëgg ak lu ngeen di bañ yéen ñaare ko xam man damay yaakaar ne xëy na loolu ngay waxtaan ak sa jëkkër boo leen wéetee moo tax ngay doxalee noonu boo génnee ci mbedd loolu tuddeewu ma ko changement dama tuddee ne rek choix la boo xamante ne c'est par rapport que yow sa vie de gën a mën a amélioré wu comme dundu kaane yoo fa nekk yi wala dundu français yoo fa nekk yi nga ñëw bëgg ko imposer fii alors que gars yi xamuñu loolu noonu je me dis que ne peut-être nekk complexe moo tax gars yu bëri di ko def quoi nit ki moo ni mu def ba liggéey alalam noonu rek lay mën a dundee parce que sa alal tey jii nii am na ñoo xam ne ni ñu koy amee seen alal dafa yomb dangay ngay dem am ko ci am am boo xam ne dafa yomb bu boobaa yow boo koy génnee tam da nga koy génnee ci lu yomb mais sax xaalis bu fekkee da ko liggéey ñàkk ko sonn si nga xam li nga daj avant nga koy am bon balaa nga koy dugal fenn di nga xam ni fii ma koy dugal nii bon day leer naññi nga soog ko fa dugal parce que doo dem jël dem ba Europe paas sa xaalis dem def fa ay at nit ñi yaakaar ci yow nga ñëw fii bazarder sa xaalis def fi un mois deux mois sa xaalis jeex ñu naan kii lan la indi woon nag amul dara da doon jaay kii fekk amul dara mais vaut nag bon nga réservé wu waxuñu la bul def lu baax di nga def lu baax mais tamit nag da ngay wu. c'est que ni ku nekk dangay ngay dund selon sa lu ñuy wax classe sociale quoi parce que man su ma demoon tey ba yor xaalis xaalis bu bari boog laay wax dañ ma jégal quoi mënuma dëkk si yenn coin Dakar yi je suis obligé ma dem dëkk benn koñ bu chic benn koñ bu baax ma yor sama oto yor sama kër parce que sama classe sociale may na ma ko léegi nag des gens yoo xam ne xam nga amuñu loolu wala peut-être du ma ne sax iñaan wala affaire yooyu noonu mais seen gis-gis la quoi parce que nit ki doo yor benn alal bi ba pare ngay dund dem di dund ci yenn liey wala affaire yooyu noonu tu es obligé nga def lool noonu parce que lan moo tax sa moyen moo la ko may jërëjëf euh, kon euh, Zeyna ñu koy remercier encore une fois ci micro trottoir bi mu def Alaaji ban commentaire nga am soo déggee xale yi ñoo xale yi moom euh, fi ñu jaar fépp man d'accord naa ci yàlla bu la dimbalee dëgg la da ngay sa bopp dëgg la Alaaji dëgg la dafa am euh, at mi ma jëkkee dem euh, def na sama dixième Makka maak Adama Ba maire. macha allah barkallah bu baax neexaan daal. dana nekk góor goo xam ne gi mm. xii a tax mu feebar ba yóbbu ko hôpital. Adama Ba di dugg ci waañ wi di ko toggal. bi ñu ñëwee ba dawara ñibbi si wecc ko daa tikki ndigg la million cinq cent mille. ndax loolu la xaw tey la bi la alors li xale yi wax dëgg la wax nañ dëgg waaye alaaji nay du dugg àjjana dama ne lenn sax dug nay alku la bala ngaa nay dëgg la lii ñu wax wax na dëgg yàlla bu la tàccoo feccal nooy fecce nag xamal pooj bi ngay yëkkati bi ngay dal bul beew bul xeeb ku yàlla bind ña nga amoon am leen koo tane dimbali ko waaye nag say condition yaram yaram dafa am condition dëgg la laaj ah dëgg defar ko dëgg kooku du beew dafa am loo xëy nag saa bu ko Sénégal lii rek la gën a sawar caat tey yor mbubb rafet dëgg ne ci oto ba rafet ñuy day bari titre day jaay titre déedéet jaayul titre dëgg la ku dem ci titre mm. dëkk ci titre ndeysaan nekk ci titre foncé ndeysaan ñu foncé la ndeysaan kol la bu la neexee bonde dëgg la kooku yàllaa koy def dëgg la dëgg la laaj dafa am loo xëy lii yàlla da lay teral dëgg la nga sàggane sa bopp diggante dëgg la yàlla yàlla musal amiin amiin amiin booy na sa njaboot yàlla teral la mm. teew leen ci condition yu normal dëgg la laaj te kaay nañu waxtaan kër yi lëkk yi kër yi am maanaa tey Sénégal te doo dégg seeni wax mm. xam nga lu ko indee mm. Mm. kër kër yi la ko sëñ Fall waxoon dëgg la waaye ne boo kër këree ba kër ga taxaw nag la tax kër gay neex ci yow lay jóge dëgg la dëgg gis nga déggeen jigéen ne mënu mu tudd jigéen naat bu nangu dëgg la ne ma ba ko ñaareel jig mm-hmm. nu góor tudd kër luy yaatal ba kër kër yi lu ko ñetteel ki nga yor. dëgg la teg ko am naa sa xarit boo xëy ñetti soxna la am. ñett ñett ndeysaan aawoo ñaareel ñetteel. Mm. aaw ba da ko tuddee àjjana. Mm. ñaareel ba alboraax. Mm. ñetteel ba Kaaba ak Makka. waaye El Hadj lii neexul. dëggal eh. xamul seeni tur. ndeysaan bu ne bërtal ci buntu bi danaa alaajana. ndeysaan mun ko dem ba ngoone góor yaa xam jëmal yóbbu na ko. jàpp waaye El Hadj lii neexul El Hadj neexul su mel ne yéere yi wékk ko. ndeysaan boo lëggee bu fekkee ne mu ni tël ne alaal baraax ndeysaan mu ni ko kër maa joor kër si yaasin kër si ndee la mbaa miroo wallaay ndeysaan su mu mi wallaay ndeysaan bu ca lëgsee aneen néegub yàlla ga néegub yàlla ba wallaay wallaay ndeysaan aneen néegub yàlla kaaba ga ndeysaan mu tagg ko ndeysaan benn ni ko anaajana mu ni teg mm. wuyuwu ko mm. alburaax wuyuwu ko mm. kaab ak màkk wuyuwu mu ni ko lu war a loolu lu xew mu ko njaay ñaata lanu sëy mu ko 30 ans. Mm. noo ma tuddee àjjana. Mm. tekkil ma lan mooy àjjana. ndeysaan mu ne saa bu ma fegeelee ci yow mbaa ma aay ci yow. Mm. ku dajal loo ma def jéggal naa la. ndeysaan fii ganti fenk ak fi muy soyee aw naqar xaju fi. ndeysaan ma yee maa ngi ci bànneex àjjana lay tudd. ay waay. mu ko d'accord na ma. aaw bi ñaareel mu ne ko alburaax nu ma ko tuddee. ndeysaan ci. mu ko saa bu ma aayee ci yow. lépp lu ma bëgg. te ma gën a gaaw saam xel ne ki melakaale bu ma xefee kenn may xëppi mm. fekk naa sama lépp jàkk ay waay mu yàlla bu raax gaawaay jeg ay waay allah ji kaa bag màkk ni ko waxal ak man mm. mun ko saa bàyyee ci yow mbaa ma ci yow dama lay dar mu daroo saafante ma jël ubbi ko lépp ni laaj ma exil la waa allah ji lii neexul xasum seew ak reeni siiw wallaay wallaay ndeysaan boo leen xoojee ci dëgg la xel mu dal dëgg la yaakaar laal ko dëgg la buntu ba ubbiku wallaay wallaay te du jafe macha allah macha nga góor ñi nag lii moo leen manqué nag nañ ko waxante façon yii nag moo leen manqué lii nga wax daal li ñëpp ci bu gis nga laaj wax ju neex ji coow leeg tukki judduwaat ak soppeeku jikkoog loolu yëpp dafa am lenn loo xam ne kooko tàmmal alaaji moom ko wax ju neex kooko tàmbal ma ko te ñun ñii jigéen ñi généralement ñooy daw dab ci kii kii ci wax ju neex te góor ñi duñ ko def loolu tamit defe naa ne lii jàngat bu rëy la ci bët góor di sànq yi am ma doon jox benn exemple ci tukki judduwaat. si tout à fait parce que xam naa ne temps bi di ci des bëreetu. Hmm. te comme tey mooy sama dernier jour ci thème bi. Hmm. Hmm. mënumaa jóge ci plateau bi te waxuma ko. muy loo xamante ne ñun jeunes yi dañ koy faral di gis bu baax. di wor parce que tukki judduwaat ak soppi jikko boobu dina indi wor ci fànn yu bëri nag. njëkk. ci jëkkër ji nga xamante ne wala jabar ji nga xamante ne euh, dem nga ba fenn ci sa sëy xëy na nga am une promotion sociale mm. xëy na yàlla ubbil la say bunt mais nga dem ba mujjee xeeb sa jabar mm. nga dem ba mujjee xeeb say doom mm. yow boo xëyee costume say doom tilim sol ay sagar nga romb leen naan nii rek ngeen mën a mel ndax seen jabar seen yaay sax dafa branché wul xam nga tout à fait ay baadoo la ngeen ah waaw ay baadoo la ngeen ay seer la seer yi seer yi ngeen ah. yéen su ma yëgoon bàyyi leen ah. tata dégéen xam nga yooyu tata dégéen dafa grave parce que jigéen ji nga xamante ne yow yaa ko tànnaloon sa bopp ba jur fa ay doom naam xëy na yàlla ubbil na la ay buntu ba xëy na nanga meloon melatoo ko xanaa nag tata dégéen booy soppeeku wala booy jëndal sa bopp costume da jëndaaleel sa jabar robe bu rafet mais dañuy dem ba mais na seen kër yi sax dañuy dem ci tukki judduwaat boobu mhm. changer statut ba nga xam ne seen kër ñaari togg fa yam waaw waaw togg ku leen di grillade ak di leen defal loolu. xam nga xam nga tata Degene yooyu dafa di yoo xamante ne jigéen ñi daal tata Degene ñu ngi wanaasu bu baax a baax a baax te góor ñi nañuy def attention ni ko papa Ndiaye loo di waxee ci jigéen yooyu di moom bu weesoo loolu mu am tamit beneen boo sax seen borom kër nag si si non mënatoo ko bëgg parce que dafa am ay affaire yoo xamante ne day rey mbëggeel su ko reyut tamit dana ko wàññi xëy na après loolu la a fa la wallaahi dañu waxante dëgg teg déer ba nga xam ne su duggee ci néegu soxna nii lay def nii lay def ramasse bagage yëpp ne ko maa ngay dem boo takk na xale nii lay def nii alaaji mën nga takk sa xale ñu nome la waaye waaye xam nga lu ci topp est-ce xam nga lu ci topp dañ koo wàcce daaw xala waaw takkoon xala tegul xale dafa takkoon xala alaaji xale la takk di mu déedéet xala ah boo takkee xale da ngay xam mérite xale waaye kañ nga bàyyi woon da ngay doon xale la waaye mag moo gis day doon mag mbaa gone dëgg la xala la takkul xala dëgg la xala mooy bant bu dëng dëgg la dama ko day yomb dëgg la bokkul la xale bu xam xel dëgg la ka nga takkoon xale la woon dëgg la waaye kuy day weesu mbote dëgg la ki nga takk dina doon naan mag dëgg la kon bu takkee xale du doon xal alaaji am na góor yoo xamante ni ci tukki judduwaat bi tukki dëkk dëkk wala tukki quartier quartier mérité wuñu promotion soo bëggee dégg dëgg parce que promotion boo xam ne yéene woo ko sa soxna promotion boo xam ne yéene woo ko say doom am na ñenn ñoo xam ne voiture de fonction bañ leen jox alaaji seen soxna du ci mës a dugg du ci axan axan kay jigéen ñi ngi may dégg duñ ci mës a dugg mm-hmm. seen doom kazalika duñ ci mës a dugg mm-hmm. voiture ba nga xamante ne mooy voiture fonction yu bees duñ ci mës a dugg moo tax nit mu am seetlu dafay baax parce que dafa am yoo xamante ne gis nga tukki judduwaat ñu ngi koy wax mais dafa am yoo xamante ne dina am ay indice mënut nëbb parce que gis nga jëkkër ji nga xamante ne yaa ngi sëy moom bu teyee mu mel ni bu subaa mu mel ni le dina ay facette yoo xamante ne yow war na laa njortu ne war kii ëllëg ak si biir bu euh, amee xaalis nii ak nii ak nii la war a mën a comporté woo mm-hmm. dafa am yoo xamante ne tam kenn du ko demaale lu mënul dem moom dañ koy dagg ca ba muy teel mais exemple beneen bi ma bëggoon joxe balaa heure bi di jeex mooy ni euh, même si diggante relation ñaari jeunes yuy dox ànd yenn saay tukki judduwaat mun na koo tas ndax dafa am euh, benn couple bu mu mës gis ñu nekk ay jeunes ku góor ki doon militaire ku jigéen ki jàngoon ba am bagam mais nekkoon ci ay situation yu metti daal ay parent am amuñu woon euh, moyens yi pour fayal ko mu topp ay études ak yooyu yëpp militaire boobu moom moo doon lu mu fayee ko weer bu dee dafay jën salaire am ak léppam jox ko ko jigéen ki kooku moo ci ciy ci nekku ko déedéet tëyel lii au moins nga ciy paas pour muy fay jàngam pour muy fay jàngam soldat bi di fayal jàng soldat bi di ko fayal jàngam moom mu nekk dakaar di jàng di jàng ay ab jàng ba pare ba dara desul su dul takk mu ne moom léegi ak études yi mu def ak fonction yi muy occupé moom xeeb mu am jëkkëru soldat waaw tey lii xam nga xam nga tata Ndege war boobu rëy na waaye nag xam nga lu ma wax sànq sëy bi may nettali li àllaaj nee naa ko am na ay um, jël gis nga workat jëllam dëgg ku yàkkamti du ko gis allaaj loolu moom ku yàkkamti du gis loolu dafa am leen loo xam ne àllaaj du jaas muy ci góor muy ci jigéen yaa xam nga nekk bitim réew fekki wala nga nekk ci jur am na ay wor yoo xamante ne jëllam nee naa la yow da ngay toog rek ak jël sa temps nag parce que Dieu est patient mm-hmm. dafa am leen loo xamante ne suñu borom bi moo koy règlement direct te joxula app waaye dina ko régler nag nañ ci bàyyi xel bu baax a baax mm-hmm. jey waxtu yi dab nañu andi lan ngay ah, tàggoo xanaa rek di tàggu spectateur yi ñu doon seetaan yépp mm-hmm. di remercier bu baax complexe Sophia Mamel Aviation ñoom ñi mmh. en tout cas tu fais joli macha allah merci di leen wax à lundi prochain s'il peut. kan moo la maquillé Mado wala Pape Daw. tey Mado moo maquillé Pape Daw léegi xam nga léegi maquilleur la Pape Daw léegi maquilleur la kon maquillé wu la. non non maquillé wu ma Mado moo ma maquillé. ah d'accord Alaaji gis nga xeer bi ma sànni Pape Daw. Eh, eh, mag la mu eh? mag lay doon eh? loolu nga ko wax. <laughs> kan ci Pape Daouda eh? da nga ko ni mag la. ko foofu bañ ko jéem waaye li nga ko wax di ci mag yi da ko ni mag lay doone. ndeysaan ah, foofu nga wax ay waay waay allah ji yaa bëgg sama doom bi nag. waaye yeggale waaw damay man gërëm ajaratu ñaañu turi député assemblée. macha allah sama ma jigéen. macha allah yal na ko yàlla fal ca. amiin yaa rabbal aalamiin yàlla tam jooju yàlla sopp nag. aji turi ndeysaan ndeysaan ah xool naa seen waajur yi ni mu daan def. wallaay wallaay aji Touré. waaw ancienne Lyon waaw waaw. que tey aji leena Fall Diagne sama jigéen. nag sama xarit ak Ndeye Khady doomam. Hmm. ministre d'État. ndeysaan Ndeye Khady. dëgg la dëgg di gërëm nag bu baax a baax nag euh, euh, sama jigéen di sama lépp nag. Hmm. Euh, ki nga xam ne ki mooy aji Dieynaba Fall. ndeysaan. maire. nekk ca Géejawaay. dëgg la kooku de du warkat moom. déedéet te kam ànd du du war. ndeysaan di gërëm nag bu baax nag madame Thiam. ndeysaan. Ndeye Mbow. Chéri Birane Thiam Chéri Birane Thiam. laaj ma ak kan ak Awa Mamour madame Dioum. madame yaayu Mohamed doomu Ndeye Mbow. oh ndeysaan waaw waaw mooy doomu Ndeye mbaw jongu hmm. waaye maa ngi ñaan wali mati nag bu baax a baax. ak Moustapha Sow sëriñam. dëgg la di gërëm nag ah, diggante. dëgg sa xarit Xadi Faal Taal. ndeysaan ndeysaan waaye bul fàtte mukk nag. Hmm. ki nga xam ne ki dalaa soppaloon boppam. Hmm. ba tey deñul. mukk muy maam daa ñaŋ. ajaratum nekk yoof ak ki ne loo. nekk cité xaadim. Euh, macha allah. di gërëm nag sama xarit mm. benn bakkan nag mm. Papa Diassé mm. ak nag Bour Saloum Gédel Mbóoc yàlla na ko yàlla jàpp teral ko xaritu Alaaji Aydi Wàdd ndeysaan Alaaji Aydi sama sëriñ nag laay terminé ndeysaan sama sëriñ sama xarit nag ndeysaan sëriñ Fallou Galas Mbacke Maane ndeysaan ndeysaan borom teraanga ji dul jeex wallaay wallaay wallaay te ku dib xalifa rek am na sa ngërëm ah, ak soxna Mati Fall ak soxna Mati soxnaam bu baax a baax macha allah waaye nag sama sëriñ ba nekk nag ca pooxan ca gorom ca gorom ndeysaan lay gën a gërëm bu baax. ndeysaan. sëriñ boo xëy door mukk. ndeysaan. lu ma xam wax. macha allah ci lu jëf ci rafet. macha allah kay yal na ko yàlla jàppale. macha allah amiin waaye nag ki nga xam ne ki mooy sunu sang noonu. di sunu xarit nag mu barak ñaŋ. wallaay ndeysaan sëriñ bu dul wor. ndeysaan te lu mu def yàlla ànd ci. macha allah yal na ko yàlla jàppale macha allah macha allah sargal bu baax a baax. kilifa diine yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci réew mi yëpp di sàkku ci ñoom ñaan waaye dellu di leen ñaanal ñoom kilifa diine yi fu ñu mën a ne yenn na yàlla ñor di seen fan wéral seen cër ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dem ba Poroxaan Alaaji sàq mi sa lanc nuyu Serigne Mbacke Madina fa la macha allah général Maam Diarra fa la macha allah ak sa ay doomam soxna maam Fati ak soxna maam jaar ñu nekk fii ci Nord Foire Alaaji fa la macha allah di remercier bu baax a baax May Primavera ma nga xam ne boutique Primavera nekk en face piscine olympique ca Point E Adja ñu ngi koy sargal bu baax a baax nekk tubaakalla macha allah a remercier ajaratu euh, Fatlay Kena Amadou Boubacar madame Sall ñu ngi koy nuyu di ko sargal di nuyu nag alaaji ci Italie sama doom euh, Aïcha Thioy madame Sall Aïcha Thioy ñu ngi koy sargal bu baax a baax nga fa am ak kinne Aminata Tall sunu doom Aminata Tall Zurich la ne alaaji Suisse am na ñoo xam ne ba léegi nee nañ ma mën a wax Zurich non xam nga man Suisse dama gën a saf <laughs> macha allah alaaji kontaan naa ci yow di jox rendez-vous suba ci kàttanu yàlla ci beneen émission wareef yal yàlla def dégg ak topp ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla bu kenn manqué yàlla bu kenn manqué li ci barke alquran al karim jërë ngeen jëf. Sivox bi defar Carol Skin moo leen doon may seen émission wareef.